wa sallam moo ko njëkk a jàngale moo ne xayraan aw liyaas mu da leen wax aw yiw wala ngeen noppi ginnaaw nag li yonent bi nga xamante ni moo ko wax nag ñoom ñu aw ci loolu mooy jëf lu baax tey jii nag ñoo ngi ci woo ñëpp waaye ku ne xam na ni Sorano tey jii moom dana fees ba nit ñi génn ci biti ndax ñu weete ñoo toll noonu El Hadj Alassane Mbaye griot VIP ñëpp xam ko mooy nit ku baax nekk ci réew mi di def lu baax ñii nga xamante ni la teg loxo muy Modou ak Ismaïla Mbaye ñuy nit ñu baax looloo waral tey jii tubaarikàlla macha allah ku nekk dana jóge fu nekk ñëw fii ngir jëmm yooyu ndax jëmm yooyu kat fii la nekk ci dëkk bi di def lu baax. jërëjëf Pape merci jërëjëf ayca yegg si leen ba tey waaw ma ñëw yegg si leen yegg si leen honneur aux dames honneur aux dames ayca jëla sañse yi ayca ayca macha allah kontaan naa vraiment yaay li ngeen sañse mbaaxee boo quoi. <laughs> macha allah yéen a ngi takk ba yàqu. Euh, lan mooy waraloon seen relation lan moo waraloon sax seen teewaay fi nga xam ne moom moo di Sorano. ah xanaa ñëw rek ndax nit moom bu sa noore xewlee war sama sœur bi la grande coiffeuse Ndeye ñëw ci bis bi nga def toj na. waaw maa xeeboo ko. déedéet c'est sûr xeeb ma ko moom laay jàppale. li nga romb lan la. waa gis nga. jàppale leen mais lan nga sañse nii tournel ma xool sañse bi exactement waaw waaw neex <laughs> waa ñëw jàppale sunu mbokk géwël yi dañ naan guddi nawle te nawle dafa foor sa nawle bu yëngoo ci yenn il nga ñëw teew jàppale ko ba mu baax loolu rek moo tax a jóg sa diggante ñoom lan la ah non sopp leen rek ñu nekk ci dëkk bi def lu baax di ko wax loolu doo nga tax ñu ñëw jàpp ci rek ay ci bàyyi la nga dox ndànk ñu jël sañse bi ayca ndànk rek daagul ndànk ayca ayca ayca demal daagul ndànk may gis amu ah, ngi noonu ayca. Euh, sëñ bi nuyu naa la. ñu ngi lay ziar bu baax soxna si. Euh, lu waraloon de asalaamaaleykum mbokk yi Sénégal tay nak liko ko waraloon mooy Ismaïla Mbaye ak Modou Mbaye mi nga xamni nono nek nit ñu baaxa baaxa ba suñu déplacement bi ñu ngi joggé ba Mbacké Bawol sama xarit bi nga xamni moy sama Cheikh momi it fi fii ba Touba ndax jëm Ismaïla Mbaye ak Modou Mbaye rek naw le daa fort non non non jamais de la vie parce que ñom nono deb lu reuy xolam Njaay na ku deb lu reuy da ngay am lu reuy nan leen di ñaanal bu baaxa ba seen bis bi tubaarkàlla ma sha Allah yàlla nañ ci bismillahir rahmanir rahmaani rahim génn teg alhamdulillahi rabbil alamin di ñaanalaat bu baax nag Alassane Mbaye griot des VIP nit ku yàlla baaxal la jërë ngeen jëf. macha ay ca jërëjëf. mbaaxee boo ko. ah yaay dégguma nga ni li nga sañte mbaaxee boo ko. déedéet xeebu ma ko de. cofoo ko it de. fel felaale sànnee ko def lu ma saf. yaay tournal ma xool modèle. def yëfi waaw waaw damay bëgg li yaay. waaw kay ni de laa ko defee. tey lu waraloon sa teewaay ci bis bi jege si. li waral sama teewaay. Mm-hmm. ci guddi nawle nawle dafa fort. Mm-hmm. te man maa bolaay may magu jee asu sare ah, mi rajo xëréew bi tar kalla uh-huh. laaw la cat fa tubaare kalla naw la dafa foor nag Maodo Mbaye di suñu doom ak Ismaïla ñu ñëwal nag fa tubaare kalla waa di su ànd liggéey ñëwal ajaratu Xadi Jóob Saw jigéenu Amadou Ba premier ministre mm-hmm. chéri Bili Ba ci bis moo moo waral suñu teewaay mm-hmm. Xadi Jóob Saw daal moo a suñu teewaay borom social bi ci réew mi moo tax nga def ba mu baax moo ma def man magu jee asu sare nii ma def ruqoo guddi gi ba mu ko ba mu mel ni suul ak bëgëj barke de. am kaane poobar. laa ilaaha rek junjee ko laa sax da ci am. déedéet kay yaay nga ni. barke de. waaye li nga musóor lan la. naa def sama ñetti mètre rek. tey ah. ñett laa waxoon. te benn jaata ga. Ah. ñu di ko tiktok. Ah. tey ma def nag cinq mètre fil fa laa la sànnee ko def lu ma saf. Aïcha da ngay dox ndànk mu jël sama yaay. nga dox ndànk nii ñu jël sañse bi yaay kaay. yaay tamit moom bëlëm bi foog ma laal ko. yaay li nga bëla lan la. kay jege sa jege sa nuyu baax li nga ah xanaa def nii rek ànd ak euh, Mamadou Mbaye suñu góor vraiment ñëw ci guddeem gi te xam daf ko tudde suñu présidente Adja Khady Diop la dame au cœur social mhm. une dame humble koo xam mi ngi ci jumaa yi mi ngi ci jàkke yi mhm. di def lu baax mhm. waaw ñu daal ko ñëw rek représenté ko mais li nga yaay gis nga ko gis nga ko def fi rek xam nga rek ñun rek def rek la mel yaay Ya ko gis de sant rek. mais man lutax mu bëgg aku yaay. waaw yow yalla nga ko doon way amin way eh, jeex na tàkk. merci beaucoup yaay ay ca doxal ay ca ma chéri ni na la. way maa ngi lay ya, fay. mais li la la robe la wala la la ma gis nga rek noo ko rek non la. na ma xol model bi. waaw waaw tout na waaw. def ci bax waaw man damaa bëgg lii tey lu waralon sa teewaay. waaw sama teewaay mooy Ngoné Mbaye Samb sama mag dafa bokk ci parrain bis bi moom lañ ñëwal gunge si ko. nii daal ngeen def. nii rek lan def. ayca merci beaucoup doxal gaaw ayca ñëw ay ayca yegg si leen ah eh ayca ñëwal mais li nga cuub la la. jàppale sama rakk ju rek. surtout rokko yi ma rem jéem a lim itam ma rem jéem a rem jéem maa jigéen jaay ma tubaab ma daawul ngiwal. moo tax nga sañse lii. moo tax ma sañse lii rek jàppale ko Ismaïla Samb. kontaan nañu. ayca yàlla bi bis mel ni galaas. amiin waay nga ca palaasam. yaa ngi ciy gis. mais yaay li nga bëla lan la. def bëla rek jàppale suñu jëkkër Ismaïla Mbaye. yaay tournel ma xool sa bëla. ngeen yaay. waaw waaw xam nga ndawle dafa foor. dafa foor ñu def noono rek xam ne ndawle daa foor. daa foor bu diggee wala waaye man def. waaw ma def sama bu la. ay yaay kontaan naa ayca ma chérie ma lii li ci suma rob la wala lan la. loolu xeetu rob la yow xeetu rob waayu baax baax la rek. mais tur na ma xool rob. mais yëpp yaa ngi tàq ba yàqu. maa ngi baax nii kon baax. ah mhm. ay ca ñu bàyyi la nga dox ndànk dem. merci beaucoup. naka la. Mamadou bokk ak Ismaïla Ndeye ak Baye. d' accord noo dundee initiative bu première édition lu ñëpp bég lu ñëpp kontaan loo xam si ni tey jii nii moom lañ doon ñaan yàlla xale boo xam si ni tamit am na initiative boo xam si tey jii ay magam ñoo ko war na crée moom mu nekk ci boppam ba yàlla dogal mu indi ko tey jii fi mu toll képp kuy askanu géwal baa nga bokk ci askanu Gawla tey ji kontaan na ndax Ismaïla ji ni am na fu mu fekk njool waaye am na fu mu ko indi ci loo xam si ni tamit nag ànd koog ay nawleem ndax képp koo xam si ni tey ji nekk nga doom bëj géew foo dëkk ci Sénégal Ismaïla taal na otoom mbaa mu yëkk téléphone am mu yëgal sa la ko guddi neew xam ne lii bokk ni askanu géwél la nañ ci ànd deviture ci merci beaucoup ay ca yaay jëlal ma sañca bi jël leen ma sañca bi waaw a ngi te mais yaay li ngeen sañ ca mbaa xeeboo leen. déedéet xeebuñu ko. Ah fonk suñu doom suñu goro Modou Mbaye bu Amadou Ba ñu ànd ak moom ci Amadou Ba dëkk parcelle mhm. te dara ñaaw di ay géwél nag tey géwél yi woote ñu war a def nii rek guddi naw la naw la dafa fort ak yëg te Modou dafa am respect bëgg am di ko dawal suba ngoon te ñun amuñu ku dul am futur président cinquième président moo tax ñu ñëwee ni def nii moo tax nga def nii ah. moo tax ñu def ni stand ah. ba kontaan nga kontaan naa nañu Eh, fay naa la. mais yaay lii nga sañse lan la. xanaa sama sang woote rek Ismaïla Mbaye borom guddi naaw la sama baay sama yaay bokk ak papaam benn ndey mu def guddi gu mel nii kon ñu war a ñëw ñun géwal yi rek waaye sama sang bi lu woote mu neex de baxar la bun bi ci deere ma sàmba jéem ci waaloog loolu tamit boo jéem doomi alaaji mbaay jeeg aja ci roqay sàmb njagay la maa jigéen jaay ak mun ma maa jigéen jaay ak jee maa jaay maa jigéen jaay yaa si jóg ko jege bu wootee mu neex tey Sorano day wàcc Ismaïla Mbaye woote. neex na merci beaucoup mais sa sañse xeeboo. man de xeebu ma ko. tournel ma xool sa orange. sama sang laa fekk si. nii de laa def def bu rek toccal ko def sama sang nii rek. mais lu tax nga orange tas yaakaaram ci bulo bi. waaw ah? damaa tas yaakaaram. ba ci ongle tamit da nga tas yaakaar. kewal yi nii la def ñoo woote tey. <laughs>